bienvenue dans votre entreprise. Troisième, menuiserie métallique Mansour. Vous voulez des portes, que ce soit en fer, aluminium ou encore en inox Veuillez vous rapprocher à la menuiserie métallique Mansour et nous vous proposerons différents designs. Il y a un pour la mer. Vous pouvez également commander votre design de choix. Menuiserie métallique Mansour vous satisfera. Prêtez-nous une oreille attentive. Nous lucide le Vous voulez des rampantes d'escalier des garde-fous, chambres à coucher, mini-salon, wala et plateau télévision notre entreprise 3 troisième fabrique tout ceci wax nañu leen ko ca ba muy teel de boulet toujours copier mais jamais égalé Wow, maa la ko pire menuiserie métallique Mansour Ben la fi, nous sommes installés à Thiaroye Tani sous le pont en face de pour plus d'informations veuillez nous contacter au 77 404 83 94 ou 77 975 75 95. Menuiserie métallique Mansour, la qualité, notre force. Euh, commune de réflexion, nous avons journée de réflexion euh, daat koy euh, jagleel rek nan lañuy xalaté ngir rek daal di ci wat ci fanwer ak ñenti quartier yi nga xamné nak mo ci sax bile Courel ñom daal di rek pour xeex li nga xamné modi dogat dogat yi nga ko ci ci rek ñu 196 bi découpage administratif yi ñëwee sur les 34 quartiers traditionnels du Thiaroye Gare xamoon dañ ci jëlee lu bari yóbbu ko fi 11 quartiers lii ñu yóbbu ko ci Jidda Thiaroye Kaw lii ñu yóbbu ko Yëmbal Sud lii ñu yóbbu ko Diamaguène Sicap Mbao Tay ñuy dox ba yàlla def terre bi ñëw am ay quartiers yu mu amputé ba Thiaroye Gare léegi se retrouve avec 9 quartiers Le Thiaroye Gare communauté bu wax ci département de Pikine mën wax ni parce que nous Gare ñu créé vers 1800 sous l'égide de Seydina Issa qui Laye ci ndigalu Seydina Gare di dox di dox 96 te li ñu daggat fekk na moo doon li nga xamante ni nii daanaka mu ëppoon solo ci Caaroy Gaar eh, ci noonu rek mu am ay bërëb yu bari yoo xamante ni dafa fare woon fii ci eh, diwaanu caaro yi waaye jamono ji moom daan nañ koy dindi rek eh, boole ko yeneen commune mu nekk loo xamante ni metti na leen lool. parce que marché bu bees bu ñuy wax tey moo doon premier cimetière Caaroy Gaar ñu délocaliser ko yóbbu ko Caaroy Kaw. centre Jacques Chirac bi ñuy wax ni jidde caare kaw la bokk tey caaroy gaar la bokk dañuy tudd centre ce site caaroy la ñuy wax commissariat bu caaroy également ñu jël ko affecté ko ak jidda caare kaw soo ñëwee côté bi féete jàmm gën si kambaaw le CM Diawar Diagne bi nga xam ni moo nekkoon le stade de Thiaroye fa lañ daan football mag ñi di xeex di xeex di xeex ba ñu defal ñu ko CM bi découpage bi ñëwee daf ko jël yóbbu ko jàmm gën si kambaaw centre social Thiaroye Gare ñu jël ko yóbbu ko jàmm gën si Cap li ëpp solo ci biir Thiaroye Gare muy ay wàllu infrastructure ñi ngi nekk ci biir camp bi pour accéder dem ci infrastructure yooyu mu nekk ay difficultés yu mag ci population yi mu am ay wax yoo xamante ni dañ ko daal di rek fore ci wewu bay ni rek dafa am lenn ci commune bu Thiaroye Gare boo xamante ni dafay daal di rek dem ci jàmm gën si Kambaaw mu nekk loo xamante ni nag duñ ko nangu benn yoon. donc Thiaroye Gare di jànkonte tey ak ay difficultés yoo xam ni que ça soit sur le plan découpage administratif wala muy infrastructure yi ak équipement yi. ñu ngi jànkoonte ak jafe-jafe yoo xamante ni tey dafa jot nag pour doomu Thiaroye yi taxaw pour dire non. parce que su ñu ko jëlee ci 34 yóbbu ko ci 11 quartier jëlee ko ci 11 quartier tey mu ñëw ci 9 quartier ñu dégg ci wéyu bëy ñu ne Thiaroye gar jàmm gën Sicap Mbao ak Tivaouane Diacksao dañ leen boolee bëgg boolee boole def ko benn commune ñun Thiaroye ñu disons non parce que jàmm gën ñoo ko jur ñoo jur Tivaouane Diacksao ba Thiaroye gar di am fii ba route de Rufisque la woon existé wul ci nonu rek mo am ab memorandum bo xamante nak nag nañ ko djébal eh, ki nga xamni modi njitu di mi di Macky Sall ci boobu le memorandum nak li nga xamni nak mom lañu bëgg modi rek ñu daal di ci si waat 34 quartiers yi nga xamni nak mo nekkone fi ci douane eh, Thiaroye Gare. manam pexe yi mooy waxtaan ak doomu Thiaroye yëpp sotante xalaat teunk un memorandum bo xamanteni da fay jël tous les problèmes de Thiaroye Gare en compte nous déposer ko devant l'autorité en lui proposant des solutions waaw li ñu bëgg mooy ñu ni réunification des 34 quartiers originels mooy ñu delloowaat Thiaroye Gare moomeelam parce que ñu bëri ñu ngi leen génne mais il ne se retrouvent pas dans ces communes là ñu ngi leen affecté tey seen souhait principal mooy ñu dellu si parce que li ñu dal dafa métti euh, dañu dal une frustration générale frustration générale boobu dafa jur une frustration émotionnelle une frustration sentimentale une frustration souvent dirais fraternelle parce que ñun Thiaroye li ñu xam moy ndey bay mak rak noñ lañ andé won woon toppante joxante cër loolu lañu bëgg aussi mu continuer ba légui te it li nga xam daf ñu dal tay daf ñu taxa ñu perdre suñu identité villageoise parce que moi quand on me dit tu n'es plus de Thiaroye Gare ma juddoo Thiaroye Gare yaroo Thiaroye Gare ñu xey bis ñu ma judd bokkatoo Thiaroye ça me fait très mal eh, ci fàttali rek commune bu Thiaroye Gare nekk na commune boo xamante ni li nga xam ne moo di terre dafa daal di ñëw rek eh, tas ko bu baax a baax eh, ci jamono ji nga xam ne nag 34 quartiers la woon tey jii boobule commune mi ngi retrouver rek ak 9 quartiers mu nekk loo xamante ni métti na lool ñi nga xam ne ñooy yeewoo fii ci diwaanu yi ba tax na rek ñu daal di rek lancer ab combat boo xamante ni ñoom ñoo koy porter ndax duñu nangu benn yoon li nga xam ne moo di découpage administratif initiative bi ñëwaat di dogat dogate seenu caaro yi